ba ñoom ñun ñu wandeel ñu wandeel baloo baloo mooy doon sëñ bi tur bi ak sant bi hmm. ba Ababacar oh. fi ñu la fekk nii fan la hmm? fi ñu la fekk nii fan la eh, Somone. Somone waaw. dëkk bi moo tudd Somone. yaa ngi ci ñaata at. am si juróom fukk at ak euh, juróom-ñett. juróom ñett euh, juróom juróom fukk ak juróom-ñett. waaw ah, ak juróom-ñett waaw. feeñu sa yaram ah, peut-être karaw gi rek. waaw peut-être karaw gi rek. métier maçon si suma ba léegi yaa ngi xëy si naaj wi actuellement il fait 17 heures 35 minutes ban heure nga commencé woon di liggéey. Hmm, xaw ma ñëwoon si nag xam naa huit heures et quelques yooyu. huit heures et añuloo boobu ba léegi naanuloo yaa ngi naan mais añuloo. waaw mais dañ ko tam moom parce que parfois journée continue lañuy def. tey moom nga def ba ba ba wàcc euh, tey journée continue nga def. waaw. accord euh, ku miinul ndox mi bu ko naanee dafay socc xanaa. Euh, ndox mi fii. Ah. waaw waaw ndox mi moom daanaka gan yi fii ñëw si bari dañuy jënd. ndox ci boutique bi boutique yi quoi. def nga ñaati at ci àll balaa ngay def liggéey bii nii. waaw oh, man <laughs> daanaka sama papa aventurier la sama papa si jamonoy jamonoy eh, yi ko leen yi jëloon si <laughs> si lébu lébu gi quoi Dakar Cap Vert liggéey bâtiment administratif yi après si la pare paree ñu jël leen Sénégalais yi. yóbbu boleh ay Côte d'Ivoire Abidjan ay Mali ñii ay Guinée Conakry. mu melni yow bok nga signé tukki tukki yu bari fa ne dugg nga fa ci àddina bi waye ci Afrique. Aw <laughs> oh, tukku tukki tax ko bari sa. c'est juddoo ma sa Sénégal sama papa Sénégal lu sama yaay Sénégal mais rek ñu si yeneen rew quoi ci Afrique. ndax tukku bi sen papa don tukki. waaw voilà <laughs> souvent ni ñu doon déplacé quoi. léegi te moom da doon liggéey tamit. da doon liggéey. waaw <laughs> oh. yow alors ñaata at nga des si liggéey bi. liggéey bi depuis depuis soixante dix neuf quatre vingt. ba léegi laa ya, si dugg. mais avant ma si dugg fekk na mënoon naa ko dama vacance dama doon dem sama chantier quoi. ñaati immeuble nga amal sa bopp wala ñaari étage yoo xamante ne yaa ko liggéey si bopp si liggéey bi. waaw <laughs> ah, yi ñuy liggéey waaw ah, yi ñuy liggéey moom bari na wax deug yalla lo momal sa bop ñaati immeuble man wa dama abaguma sax ben terre ci deuk bi ma nek te deuk bi ma nek ni fi la suñu borom def sama wajur bu goor do fi ay magam yu goor yeen fan nga Judo yow man ma ngi jiddo euh, au sud euh, guinée conakry 58 ans ana soxna si bon taguma nak dalaguma dalaguma dal bo xamne <laughs> mën jël soxna. 58 ta dalaguloo kañ nga xalaat ne si ngay dal. ah ñaan borom bi suñu borom. <laughs> borom moom mën na ñaan bi ba léegi nangogo ko. ba nga ah. ba nga nekkee xale bopp bi jaaw ni ñaan nangoogul ñaan bo bàyyi ñaan bi nag. Ah, nangu na ko. doo gét doo gét nangu na sant. yaa ngi koy sant ndeysaan parce que am na ñeneen am ñeneen ñu ñu seen mbir eh, sotti woon.

ma ma dégg la démb nga ne balaa ngay am soxna il faut que nga am kër am xaw ma la nag lan. non boobu waa beneen euh, mbokku ouvrier bi doon waxtaan ma koy laaj parce que moom mu jógee côté Fouta ñëw fi te yàgg nañu xamante yëg naa ne sax am na soxna. ma koy laaj ndax soxna na Fouta parce que démb dana ma boppam day day métti naaj bi dafa tàng. ma ne ko lu tax fagaru woo mbax mi mu ne ma daf ko fat ma ne ko yow yaa ko naaj bi moom il faut mu tàng chantier bu dul dara sax bu sa bu dee sedd sax dañu war a sol mbax ne ko parce que ngelaw li poussière bi foo ñu sóoral léegi ba léegi amaguloo soxna wax dëgg yàlla ak âge bi nga am 58 ans kañ ko ko fas yéene jël. <laughs> maa ngi ko dénk daal borom parce que jamono ji nekk fii société bi wax <laughs> xaw a yéen loolu moom wér na gaa yu bëri ñu si bëri léegi ah eh, am am ak yooyu lañ lay bëggee ko boo yoree ñu bëgg la ñu bëgg nañ la ga dem ñu fas ko suba te buur yàlla buur yàlla bi mooy moo dul jeexal voilà day dénkaane rek. léegi est la jox suba bu bu ah. eh, bu joxee suba. mën nañu bañ a jox parce que dénkaane la mais teewul yow moom nga gëm moom ngay gëm ba abada moom lay gëm quoi baba lu mu dogal si yow nangoo ko voilà loolu daal léegi ñàkk toog bi lu mu la xañ parce que tey ah? say doom say doomaati doom am nañu ay sët ba léegi amaguloo bant loolu ah, doo toog léegi-léegi nga rëccu sa yàlla suñu borom dénk na ñaari bant fekk du si sëy non góor ak ah d' mais daal amuloo sens yor soxna ba léegi yow loolu doy na la quoi léegi ñaari doom yooyu nga am. non damay ñaan kay suñu borom may ma soxla loolu jamono ay jamono tout tànk la xale xale yooyu. d'accord ak. Euh, ñoom am nañu ay soxna. waaw ku jigéen kii am na sëriñ ku ku góor ki mu ngi jàng mu ngi université ba tey jàng. d'accord léegi ñii di wër rek si dëkk bi di tukki ji di dem di dem tooguñu nekk àll yàgg fa loolu ñëw fekk ñëpp changé. loolu. waaw. ah birig birig bi tegal mën nga tegal birig bi waaw mu mu ngi koy tegale waaw léegi. loolu moom mbiru yàlla la. waaw jàmm bi demam la xam demam la xam. Ah, ak yaakaar. yaakaar bi yëpp yaa suñu suñu borom. nit ki mën na dem du dellu mën na dem pour wuti mu am suñu borom dénk ko mu am mën na dem aussi mu bañ a mu bañ a am am boobu quoi. am am boobu ñuy xalaat parce que am am dafa dafa dafa yaatu am am dafa yaatu. am yaakaar naa du mbiru xaalis ak yooyu wala am ay tax wala ay woto yu cher ak yooyu am am dafa yaatu. yow looy tudde sa am am yow sa am am mooy lan. Ah, ah moom bi si njëkk la mooy góob <laughs> wér wér am jàmm wér wér ni am jàmm eh, gëm gëm borom bi may def loolu. boo amaatoon possibilité tukki di nga tukki. waaw ah, incha allah. 58 ans. boo gisee tukki tukki. waaw ah, parce que pour man du tukki mais mais mais. ay wakkilu ay wakkilu. jërëjëf fépp fu ma a dem suñu boromam. jërëjëf jërëjëf.